voilà merci beaucoup jaajëf ñu ngi leen di ziar bu baax comme ni leen ko waxee rek ati dañuy ñëwaat léegi léegi commencé waat li nga xamante ni moom ambiance ah, fas yéene yéeg ci kaw nag nee naa leen sista aram ñaa laal alliance soxor kele moom day féetew li nga xam ne moom ambiance ni laa def sama caméraman topp ma ñu yéeg ci kaw xool ànd ak waa DMTV fas yéene daal di ñëw nag du yomb dëgg neexut waaw ñoo xool si ambiance fii ah aca yëpp ñu ñu xool boobu ah tubaarkàlla sama géwél ñu ngi nii tubaarkàlla ah. ah xoolal lii xam nga ne tey nee naa tey SRS day jeex fii tàkk ndax Sénégal yi masala macha allah dëgg neexut dañoo àndandoo rek ah waa xoolal ma Fall. loo wax. waaw yow xam nga ni kontaan nañ ci yow. yow foo jaar mu leer. ndax yaa ci yow. jaamu bu baax waaw maa ngi ci jaamu sant yàlla non non xeebu ma ko def waaw match bi moo ko waral da dañoo ñëw si sunu jëkkër yi di maçon yi ñu leen di ñaanal ndam bu set wecc ci bàcc Seydina Muhammad waaw waaye man euh, dafa mel ne yéen tey dañ leen def 2-0 lu bi xoolal dañuy ah. xoolal ma la mu sama sama xarit comme li ma leen wax rek gis ngeen fii tubarkalla def ba mu baax xale yu jigéen def lu civilisé ah yaakaar naa ne tey dafa war a mën a wàcc ndax nee naa la lii dafa neex Sénégal moom ku ko xam-xam ni fu mu nekk rek dafay daal di neex dafay rafet tubarkalla ñi ngi sañse lu baax daal di toog fas yéene supporter ñi nga xamante si nii ñoom ñooy maçon yi ñi di supporter sama xale bu góor bi na nga def sama ndaanaan waaw maa ngi lay fay bu baax non non. <laughs> <laughs> non gis nga ni waaw gis nga la def rek ñëw toog di seetaan si marché bi quoi. kan moo la tax a déplacé sama gars yi xam rek waa maçon yi ñoom laa àndal ñoom laa ñëw seet si leen ñoom laa supporté si nii te baax. gisoo bi yaa ngi nii quatrième quatrième bi dugg na. kan mooy gagné. maçon yi ñooy gagné. waaw d'accord danoo mën gars yi nag danoo mën gars yi gis naa loolu waaw. waaw dëgg du neex dëgg neexut ah waaye si wet gi ba léegi maa ngi jàkkaarloog sama tons kooku mooy jibi kooku mooy borom dax la tubaarkàlla ku ko xamul dégg nga ko ma xanaa ñu tàllal la micro bi rek nga daan wax tey lan nga yëg tey si match bi nga xamante ne am na tey. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di ziare ñëpp di am contentement ci bis bi vraiment lii mooy Sénégal. ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañ fay ñëw ngir liggéey ci légui ci kaw liggéey ci bobu nak comme dañ fay dajé bokku ndé ak bay bo te yag yag ñuy and dellu suñ dajee dañu wara sét li nga xamni solidarité la ñuy ando di bendo li sport la kaf la ré la ñu kaf ré mu jeex sénégal jëm kanam wa di contenté ñëpp vraiment li rafet na trop quoi man dama koy lu quoi oui kontaan sant rek lépp jaam sant yalla bu baax euh, tay do ko supporté ci tay kan mo tax nga ci stade ñom ñaan ñëpp support ñaar

moom saf nañ saf Géejawaay saf nañ saf Pikine saf nañ saf Dakar Ndiaye tubaarkàlla na nga def sama nijaay maa ngi sant bu baax maa ngi sant sëriñ bu wér sant sëñ Tuubaa bu wér baale rek di baale fi jàmm ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax a baax waaw lii moom dafa bokk ci bégalante rek comme niñ ko tuddee rek football dafa bokk ci loo xam day boole xol yi jokkalante nit ñi ndax béréb bi day bérébu liggéeyukaay nit ñi amuñu jot sax pour daje ci lenn kon événement yu mel ni si la nit ñi mën a surtout ñun sénégalais yi ak yeneen nit ñi mëna am suñu biir parce que dañoo war a xamante war a dimbalante war a bëggante soppante wóolante tax wa kon daal daray ngi sal amu ci dal wa motax ñu déplacer wu ak dérangement ñu teew wa kontan nañ bu baax suñu xol sedd na ngi rafet li ngi rafet lu affaire bi amna solo and ah. ben jour ñu kaf retaan ah. am solo quoi dafa bok ci ci dund doomu parfois nga liggéey mais parfois ko nga am temps pour euh, dajalo mbokk mbokk yi xam nga Eh, kafre dafa am solo dal di contane lool ci liggéey bi tay we ci kaw ci kanam ci lu bax ci kaw ci kanam tv ci kaw ci kanam lu bax ata degal loolu sama xam la def maa ci jàmm alhamdullilah sa va alhamdullilah lo gisee match bi tay ah neex na de neex na de football mom xam nga ne mom dafa dafa war di am chaque semaine nak li dafa war di am chaque semaine macha allah am na solo lol kan mo la tax a ñëw ci sambe non dañ ci kumpar parce que mënu mësuma fee ñëw nag ah. mësuma fe ñew nak contane na ci alhamdullilah ah, degal loolu xam nga ni jàmm dafa neex sama cameraman aha neena lan nag dafa neex lu du rek yaa ma ko gën merci beaucoup ba légui rek gis nga li dé néna la tay euh, fu mom Maroc fi nga xamni mom moy mooy Dakhla daal dinay saf li nga xamni mom moy Sénégal sunu marraine bu ñaawul bi ku ko xamul dégg nga ko muy kan ñu ne xana adjaratu aja awa awa ki nga xamni mom moy awa tan ah, awa tay mom nga xam ne moom moo li nga xamni mom moy marraine bi ah mu daal def nak VIP bu baax tubaarkàlla dal di tok fel sané ko mama na def ma ngi fi rek ma ngi len di nuyu mhm. waaye yéen nga am jamm alhamdulilah Mama tay mel bis bi tay yow lañ ko dara jalee tay mama awalon nga xana contane lol rek mm-hmm. waaw di ñaanal xalé yi ñu am jamm rek mm-hmm. ndax lii yëpp kafagree la rek macha allah mm-hmm. waaw ñuy jël cër bi jox ñuko kon dañuy kontaan lool macha allah ah di leen ñaanal rek yalla yalla yàlla seen bi ndax lii yëpp kafagree la rek macha allah ndax mama Awa li moy première édition bo xamné ñu dippé lako wala yag nañ lako ko lu ni mel tay waaw bi nak moy premier mom bo xamante ni buñ mako tuddé fi ma mhm. sha allah. Mhm. ma si contane lol nak di si contane waaw wax deug yalla lepp cër la rek. waaw ma si contane bu baax. Mhm. waye nak duñu jéxal té waxuñu la ban conseil ngay conseil xalé yi nga xamanté ni ñom ay nouveau lañu ñu ngi dogu a ñëw si dëkk bi peut-être tay buñu ñu demee tey ba bis japp nañu xaw nga ñu yag ci dëkk bi ba am nga ci expérience mo tax ñu da koy tuddé lan nga leen di conseil ñom ñoñu la. waaw lu ma leen di conseillé mooy ñu góor góorlu rek jàpp seen liggéey te xam ne kon liggéey moo ñu fi andi ñun ñëpp kon nañ góor góorlu bu baax ñu jàpp seen liggéey ndax euh, xëcc bu daggul rek dina dikk incha allahu rabbi góorgóorlu rek bu baax inshallah allah dina baax waaw. Ah, kon ñu ngi ci mom bu baax koku mom moy nek euh, marraine de la jour koku moy nek ki nga xamanteni moy mama waye nak ba legi tamit neena len fu gor taxaw rek jigen ak ci wet ga waye fu jigen taxawit gor nga ci wet ga te nak bu ne gor baax nak dañ nak mbok ya ka wax waye ku ko xamul deg nga ko ñu ne koku moy kan ñu ne xana père ah père nak tay mom lañu dara jàlle bis bi koku nak tay moy pare bu mag bi ah waa père ñi nga lay nuyu ma ngi len di fay soxna si voilà waa DMTV maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mhm. Euh, tey tout simplement am sentiment de joie et de satisfaction euh, en tant que parrain du tournoi ou bien du match moi que j'intitule euh, le match de l'amitié bi nga xam ne moom lañ ñu tuddee. donc ma am ci mbégte bu rëy ndax lii ku la defal lii nga war a xam ni ñu la yëgg la mhm. te lii euh, dafa doon loo xam ne. Nous euh, la pour ñun sénégalais donc mu ci ñun ñi responsable sénégalais parce que nous sommes les gis nañ ay sénégalais yu donc si am satisfaction parce que euh, li sénégalais ñu ñuy ñu ñuy suivre ci ñuy am reconnaissance ci ñun euh, franchement je suis très très ému je suis très content donc vous de la DMTV je ne fais que vous encourager puisque déjà je sais ce que vous faites euh, dans cette ville Les activités que nga xam faites nous la ñuy publier pour les gens. xam donc je euh, vous leen di gërëm bu baax donc aussi je vais profiter pour lancer un appel aux Sénégalais donc nous avons fait un ñu de nous sommes donc fii ci dëkk bi donc dëkk bi dafa am ay loi ñu fi ñoo xam ne ñoo fi nekk ñu fexe ba respecter loi yu ak réglement yi nekk ci dëkk bi donc sénégalais nag dafa amoon loo xam ne ñu ngi ko ko doon xamee muy jom ngor donc loolu laa bëgg sénégalais valeurs yooyu ñu am ñu ñu ñu jàpp ci bu baax a baax bañ kaa fàtte donc euh, loolu daal laa amoon ay kaddu yoo xam ne bëggoon naa ko sànni tey quoi. waaye tamit du ñu jeexal tamit laaj ñu la tey sa nekkeen fi nga xamante si ni moom mooy Dakhla ndaxte yaakaar naa ne kilifa nga te yaa représenté ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ah, tey euh, naka nga gisee tey sénégalais yi seen dund fii nii ndax tey soraluñ la si yenn jafe-jafe yi ah, ah, pour sa nekkin ak euh, ñi nga xam ñoom ñooy marocains yi fii. effectivement maa ngi lay gërëm ci laaj boobu. Euh, parce que fii euh, c'est vrai que problème yi bari na mais bon ma ngi gërëm yalla bu baax ndax kat yalla mo ngi may dimbalé mais franchement euh, ci problème yi nga xam mom moy ñew ñëw mang ci ngi trouver ay solution ak ñi nga xam mom lay andal mu nek euh, Adja Awa Jami ak euh, jëkkëram kaw ak membre bureau yi parce que membre bureau association bi aussi ñu ngi ci suñu ginaaw ñu ngi ci ñun ñëpp ñoy travailler ensemble quoi donc c'est vrai que problème yi bari na comme ni ma ko waxee sank mais bon yalla mu ñuy sutural té franchement sénégalais yi donc am discipline de discipline bon, xam fait fii ci dëkk bi sax boo xoolee pratiquement amuñu problème majeur ci avec les autorités sinon avec les Marocains ndax dañu dañu on nous dit on nous dit toujours que Sénégal ak Maroc bi xaal bi xaal noonu lañ koy donc moi, tax nañ dañuy gërëm bu baax baax autorités marocaines yi en même temps euh, euh, Marocains ñi fi parce que franchement euh, dëkkandoo euh, je ne sais pas comment on dit ça en tout cas, le courant passe très bien. Uh-huh. Donc, on, s'entend très bien avec eux. Donc, euh, franchement, on est, on est à l'aise ici. Ouais, c'est ça même. Euh, vous Merci beaucoup, madame. Uh-huh. Je vous remercie.